Sérési Sérési 94 Walfu Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walfu Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen woy leen di topp Fall 94 Walfu Sénégal ñu ngi jaajëfal baax a baax nag sunu mbokki Sénégal yi nekk ci diaspora bi di leen wax rek way leen di ànd ak ñun saa su nekk rek di leen abonné di partager di sem di commentaire ñu ñëw ci Sérési Sérési nag dafa mel ni gaa yaa ngi koy topp. gaa yi tamit ñu ngi commencé comprendre bu baax a baax a baax kii di Siré Sy loolu nag du samay wax waaw ah, xale yi nga xam dañoo topp Ousmane Sonko wala ñu ci ëpp ci patriote yi ñoo koy wax Siré Sy dañ ko day nekk ci kanamu site internet yi di wax loo xam daf leen di mocc pour maanaam ñuy man di dellu ginnaaw ak yooyu noonu waaye nee nañ daal wax dëgg yàlla Siré Sy waxam moom li muy wax moom na concerné voilà loolu nag euh, je pense que moom euh, liñ ci mën a wax mooy Giresse yi daal gis nañ ko xam naa ni moom nekk na koo xam ne kàddoom dal na euh, image am ràññee nañ ko te xam naa ne tamit jàpp naa ne man pour man du waxee ba kanam waaye nag xale yi loo ci man Giresse yi daal xam naa ne moom joxañ nañ ko daal comme ni ñuy joxañ ñeneen ñi rek voilà ni Giresse yi mii dañuy mocc rek ngir ñuy voilà li gën nag mooy li nga xam ne moom la ñëpp bëgg réew mi moom saa su nekk bis bu yàlla sàkk xam nañ li nga xam ne ni buñ ni doxee daanaka dara du xew voilà loolu nag yaakaar naa ni xam nañ ko bu baax a baax dafa am ay leader yoo xam ne wala dafa am ñoo xam ne ni ku leen jàpp wala fiit naa leen rek daanaka mën naa ni da ngay gis ni maanaam faaw nga gis ñuy fipp loolu mënut ta ñàkk parce que dayoo dayoo dayoo ki nga jàpp la voilà keneen amaana nag euh, bu dee site internet yi nga xam dañ fay dalal yenn xam nga ñi nga xam ne ni daanaka ay chroniqueur lan wala ay borom xam-xam lan dañuy wax ci événement yi di am ni voilà ñoom nag voilà lu wax la nii wala maanaam lu ñuy sos la wala dañoo bëgg rek maanaam xam nga pour calmer mbir yeeg yooyu noonu loolu yëpp lu baax la lu am solo la waaye nag ñi ñi ñin koy defal est-ce que ñu ngi leen di déglu daan nañ leen déglu léegi nag suñu demee ba comprendre leen ba comprendre leen léegi ba léegi maanaam ñu xam seen i jeu est-ce que dinañ leen déglooti est-ce que kan duñ bokk parce que chaque jour nga gis leen ñoom patriotes yi bu ñu xoolee ne maanaam yow li ngay li ngay wax ñoom arrangé wul la ñoom dañ lay joxoñ dañuy commencé bëgg sax retiré wu sa sa man damay gis nañu dañuy retiré wu sax si yu bëree bëree bëree bëri dangay gis ñu abonné ci ay site maanaam bu ñu waxee loo xam ne waruñu ko wax Ousmane Sonko wala yooyu daal ñu retiré wu ñu retiré wu voilà gis nañ fi euh, Barthélémy Dias voilà kontam boobu nga xam ne maanaam bëri woon nañ ñu ci nekkoon dañoo retiré wu maanaam ñoom xeex bi loolu sax dañ ko yee boole voilà kon nga xam te yaakaar naa ne képp koo xam da nga am site internet wala euh, am nga koo xam da nga lay topp ndax da ngay xool ne maanaam ñiy wax ci Ousmane Sonko liggéey da ngay gis gars yi ni ñu koy yëkkatee ni ñuy daggee ay vidéo am ni ñuy posté ay vidéo am ni koy partagé nga xam ne kon Euh, affaire bi war nañu xool bu baax a baax a baax toog waxtaan nag mu sérieux mu nekk loo xam ne ni Sénégal toll na foo xam ne ni am na ñoo xam ni boo leen bëggee fitnaal wala nga bëgg leen a jaay doole wala yu ci aju dafay dem ba maanaam yii rek lay jur voilà nit ñi dañuy dem ba dootuñu gëm kenn waaw boo waxee sax dañ lay joxoñ naan voilà te loolu yëpp c'est parce que ku nekk xam na ko te loolu lu mën a dal la nag